يا معين وبك نستعين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين مرعة ذات الله ومشهد صفات الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا وسيدنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي أباس أحمد التجاني شريف رضي الله تعالى عنه عن جميع خلفاء رضوان الله عليهم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ah sëñ Habib de waxoon na leen sànq nuyu bi xumb na waaye fay bi moom tabaarakallaahu kon nag asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah ñu ngi nuyu mbokk fi teew di leen ziyaara ah di yëkkati kàddu nag ki ndigal sama kilifa gi di sama mag di sëñ Babacar Sy al Amin tabarakallahu ànd koog nag ak rakkam yu tedd yi macha allah di ñoom ñëpp di njaboot Seydi Hadji Malick sëñ Moustapha jaar na ci sëñ Habib jaar na ci ñoo ñëpp kenn ku ci nekk fa tabarakallahu jataay bi li sunu wayjur ba sëñ Mansour borom daara ji radiyallahu taala daan wax bés bi dafa ala daawme moom moo xew ci bés bi ndax lu dafa tombeek bésu abraar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 ci yoy daayira nga xamni sunu borom mo len ci ci gita yoy nga xamni ñoy sunu borom bo len ci kurel gogu ñu xamni ño xamni ni ñu bax ñi nga xamni ño sax di def ci lu bax ba yàlla boole len ci kurel gogu kon yàlla lañ ci yàlla boole dafa delo rek ci le Seydi hashim ali waxon ndax jataay bi ja jaayante bi ñu jaayante woon nag sëñ Babacar si mu jox len digal ci daayira bi ñu boole nak seigne Abdou Aziz Al Amin suñu wayjur jur Eh, tabaraka nekkoon koo xam ne ki nitu activité la sëñ Moustapha Jamil radiyallahu taala daan wax ni dafa mel ni mbir yi nekkatul ci kurus yi ngi ci activité yi du ko xam sëñ Abdou xam ne nitu activité la tabaarakallaahu eh, la sëñ Mansour si Jamil daan wax nee na il est mort les armes à la main sëñ Abdou dafa nekk ci activité ba ni mu ni mu soppoo bàmmeel macha allah kon nag wax dëgg yàlla wa abud rabbaka xataa yaatikal yaqin yaakaar naa bu ñu koy symboliser moom mooy symbole bu mag bi macha allah kon na yàlla na yàlla dolli sutura dégg sam pap Maodo si al am euh, sa sëñ pap Maodo si moom El Hadj Abdou Aziz daan ko wax ni ko la sëñ Babacar waxoon sama maam Abdou Aziz radiyallahu taala la mu la mu taggee woon sëñ Babacar dafa mel ni sëñ Abdou du ko jëmmal yaa yanu yan bi te wonkoo sàkk woo ku la aw te jàmbatoo ndax ni miig billaay si yaa bara ngor yaakaar naa woy boobu bu ñu koy symboliser ci jëmm maanaam sëñ Abdou Abdou moo incarné boobu lay boobu lay way ba tax na kon ñu sant bu baax sëñ Mansour si Jamil bi nga xam ne mooy xalifa sëñ Babacar si radiyallahu taala anhu e, ak e, yàlla dafa dogal mu am ngaan demoon ca ngumba ca kër Samba yaa maam Samba Yaasin Sëy radiyallahu taala anhu e, amoon foo benn xew-xew mu taxaw mu ñëw njobal ñu ñëw teewal ko fii boole sunu sunu bésu bopp sunu teewaayu bopp boo xam ne bi ñun bu dul woon loolu ñëpp dañuy teew fii si tabaarakallaahu ndax bésu suñu abdu bésu abraar yaakaar naa képp ku yaakaar kër si Haaji Maalik rek yaakaar naa ne war nga cee ñëw bés ci teg teew ci kon nag lal ma allah hablal mawaddati jaddidiha fa fi tajdiidi naxyaa kulla xiinin kon nag bés beesal kooku ñuy beesal bu mu kóllëre ak bu mu cofeel bi nga xam ne moo doxoon suñu digganteeg mag bu baax boobu yaakaar naa ne moo fi boole mbokk yépp kon di ñaan yàlla rek yal na yàlla nangu lépp jaayante bi nga xam ne moom lañ jaayante mu yàlla ko yàlla yéege ca jaayantu laqad radiyallahu anil muminina is yubayi'unaka taxta shajarati fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alayhim wa asaabahum fathan qariban kon nag ñu dool ñaan yàlla képp ku fi teew yàlla na yàlla faj sa aajo bàkkaar bi fi indi yàlla ko yàlla far njàqare fi andi yàlla na ko yàlla wuññi jàngoro bi fi indi yàlla ko yàlla saafara tabaarakallahu ànd ak wér ak wérle ak mucc ak muccile ak yokk ba yëg na sunu wajur ba daan wax seigne Habib wax nako legi léegi tabarakallah fi moy mooy bërëbu kay bi moy bërëb bi nga xam fi lépp fi lépp du ñore kon nag bu ñewé ba fi nak kon ma sha allah na ñaan yàlla rek yàlla defal ñu taw la ku ku mu neex sa aajo fajo na ku mu naqari sa aajo fajo na li ko sunu wajur ba daan waxe ah di nuyu sunu sëriñ khalifa bi di Seydi bakkar si Mansour mi nga xam ni moom moo njaboote njaboot gi yëpp xam lépp lu ñu fi yëkkati ci ndigalam lañ koy defee ak rakkam yu tedd yi suñu bàyyi Xaaji Malick si Maodo suñu bàyyi sëñ kër si Abdou ak macha allah seen rakk yëpp macha allah kon nag ni ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla daal yàlla yàlla may ñu teew ko déwén te déwén dàqal ñu ren macha allah di sant ñëpp na di gërëm ñëpp di ñaan yàlla rek yàlla yàlla doole xéwal gi. xanaa ñu jàng fatiha wala ah. Ah. Hmm? Hmm? ah sëñ Habib sëñ Babacar Si Mansour ah, sëñ bi yaa jóge ci xalif ah allo ah sëñ bi jërëjëf yal na yàlla nangu ñaan yëpp sëñ Moustapha daf ni comme sëñ Habiba jóge ci xalifa bi ñu jox ko mu joxe kàddu ñaan ñu tëj jataay bi def ba déwén mu nekk yàlla bu mu nekk suñu mujj daje yàlla nañ fi daje ah ci bari te mu ànd ak wér ak njaboot gu barkeel ak pas-pas bu dëgër incha allah. وتسليم على قمر من نور نيل ما نلنا